subhaanahu wa taala nguur gi du lumba ko kenn subhaanahu wa taala nguur gi du lumba ko kenn ku ne xam na ne ndax ñooña ña nga xam ne ñoom dañoo jekk ngir bokk ca ña ñuy tànn ndax ñoom lañuy tànn wala duñu leen tànn loola kumpa la ci xam-xamu sunu boroom subhaanahu wa taala rek ci la nekk yàlla ci alxuraan daa wax ne wa indahu mafatixul xaybi laa yaclamuha illa hu sunu boroom subhaanahu wa taala dellu wax ne yow muhammad salallahu alayhi wa sallam na nga wax jaam ñi nee leen kumpa day ñi nekk asamaan ak ñi nekk suuf ñoo ci maasa yam kenn xamu ko ci ku dul yàlla qul laa yaclamu man fi lsamawati wal ardi alxayba illa allah loolu alxuraan la ñu ngi koy jàng jamono yi nga xam ne ci lañu toll koo xam ne yaa ngi seetlu bu fekkee ne am na loo xam ci alxuraan bu dee am na loo xam ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day faaw am tiit dana la tàbbi bu fekkoon ne maa ngi xool yonent benn par benn ci biir alxuraan daanaka xaw na maa mën a wax ne yonent bu nekk rek danaa la mën a wax ne fii day li muy tegtale mooy xamul kumpa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata xare la ànd ak saxaaba ya ñu gañe leen ñu lor leen moom ci boppam sax xasootu uxudin lor nañ ko ba mu daanu ci ak kàmb ana ak xamam kumpa su la neexee nga jël yaaquba ab yonent la boo jëlee yonent yàlla nuuxin yonent yooyu nga xam ne yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mooy wax ak ñoom di ko jaare ci ay malaaka ndegam ñoom ñoo xamul xayb asama koo xam ne moo mën a yem moo mën a yem loo xam ne ñëwawul nga mën caa dogu naan man li gën a doy waar sax mooy damay jox diw lii yow li ngay joxe xanaa day nekk sa loxo xanaa fàtte nga tabaraka alladi bi yadihi l mulku xanaa jàngoo qul illahuma malika al mulki tu'til mulka man tashaa wa tanzi'u al-mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa bi yadika al-khayr xanaa jàngoo ci alxuraan wallahu yu'ti mulkahu man yashaa mulkahu la de nguuram gi moom nguuram maanaam lenn ci nguuram mooy xool ku ko neex mu jox ko maanaam ak pal wallahu yu'ti mulkahu man yashaa bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu wéral sunu pas-pas sunu digganteeg moom nu yor pas-pas yoo xam ne day dëppoo ak alquraanul karim yor pas-pas yoo xam ne day dëppoo ak sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam li wolof di wax naan lu xew di njàmbat jamono yi nga xam ne ci lañu toll koo xam ne yaa ngi seetlu bu fekkee ne am na loo xam ci alquran bu dee am na loo xam ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day faaw am tiit dana la tàbbi danga rët ndax lu jëm ci lu ñëwagul loo xam ne daa ñëwagul doonte sax ci bis bi la mel na tey jii man maa ngi wax jamono jii nga xam ne julli nañ gee baagal may wax ci loo xam ne lu ñëwagul la may wax ne nangam dana xew wala nangam dana am balaa fajar wala dana am suba loolu day lu mat a bàyyi xel la bu baax a baax a baax te moytu ko ndax man damay seetlu ne xew-xew yi jàll ci sunum réew muy di tànn ñoo xam ne ay fara lañuy doon ci gox yi ku ne xam na ne ndax ñooña ña nga xam ne ñoom dañoo jekk ngir bokk ca ña ñuy tànn ndax ñoom lañuy tànn wala duñu leen tànn loola kumpa la ci xam-xamu sunu boroom subhaanahu wa taala rek ci la nekk yàlla ci alxuraan daa wax ne wa indahu mafatixul xaybi laa yaclamuha illa hu da ngeen di xool bu baax waxin wi yàlla waxut mafatixul xaybi indahu maanaa caabi kumpa ya ma nga fa moom loola su ko waxoon ci làkku arab dangay xam ne kon mën naa nekk ci keneen mën naa nekk ci keneen wala fi keneen waaye dane wa indahu dafa jiital xabar ji mafatixul xaybi indahu yàlla waxu ko dane wa indahu fa moom dong la nekk mafatixul xaybi maanaam kumpa bu fekkoon ne ab néeg la bu ñu tëj doom ba nga xam ne moo koy ubbi nga xam ne mooy tax nga jot xam la nekk ci biir néeg ba suñ boroom nee na caabi yooya fi man rekk la nekk te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral nanu ci am njàngaleem ne mafatixul xaybi yi nga xam ne moom la suñu boroom yàlla yi junju ci laaya jii day juróom la juróom yoo xam ne ma ngi ko gën a leeral ci mujjug suuratu suuratu luqmaan waaye fii borom bi daa wax ne laa yaalamuhaa laa yaalamuhaa xamu leen ñoom caabi yooyee illaa hu illaa hu foofu al istisna la baada nafi mi ngi mel ne nga ne laa ilaha illa allah mooy caabi yooyu day yàlla dong moo leen xam yàlla dong moo xam caabi yooyee nga xam ne ñooy ubbi néeg ba nga xam ne kumpa dong nga fa nekk maanaam lu amagul dong nga fa nekk loo xam ne daa làqu sunu boroom subhaanahu wa taala dellu wax ne yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga wax jaam ñi nee leen kumpa day ñi nekk asamaan ak ñi nekk suuf ñoo ci maasa yam kenn xamu ko ci ku dul yàlla qul laa ya'lamu man fi samaawaati wal ardi al-ghayba illa allah loolu alquran la ñu ngi koy jàng dellu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko neel man day lor ju jëm ci man mënuma koo fekk njariñ mënuma koo ñoddil saa bopp loolu yàlla da ko sant mu wax ko nit ñi man da ko ko talqin da ko ko sax ne ko wax ko nit ñi ne ko it ne ko itam neel nit ñi man su fekkoon ne dama xam lu jëm ci wàllu xaybu kon day danaa bari lool yiw danaa bari lool loo xam ne lu ma amal njariñ lay doon waaw te itam bu fekkoon ne xam naa kumpa kon dara loo xam ne lu ma naqari la wala mu naqari samay saxaaba du du ma dal du dal saxaaba yi mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci njàngaleem alquranul karim ku sonn ku nekk rek danga koo teggi dangaa wàcc yoon wa lii yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne walaw kuntu aalamul xayba lastakthartu min al xayri wa ma massani suu loolu daa feeñ ci ak dundam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne sunu yaay xadija yàlla jël na ak ruuxam mu ne cundum wéet abu taalib yàlla faat ko ndax yonent yàlla muhammad demutoon taif doon fa sàkku ay ndimbal ndax moom ba muy dem taif xamoon na ne bu demee taif lam fay wut du ko mën a am doxuma moom mu di ko am waaye dana am lu koy dal loo xam ne ca waa taif lay bàyyi ko ku ne xam ne ne bokk na ci li nga xam ne moo ko wax moom alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci bis bi nga xamee ne moo gën a métti ci samay bis bis boo xam ne maa ngi ko daje foofee ca taif nga xam ne nga faa sànni ay xeer loolu day firndeel ne su fekkoon ne man xam naa lii di kumpa kon day wamaama saniya su yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata xare la ànd ak saxaaba ya ñu gañe leen ñu lor leen moom ci boppam sax xasootu uxudin lor nañ ko bam daanu ci ak kàmb ana ak xamam kumpa bi rubauna ndax yebalut mbooloo mu bari ci saxaaba yi ñoo xam ne ñépp a mokkal alxuraan ngir ne daa am ñu ñëw laaj ko ñoo xam ne danañ mën a dem jàngale alxuraan foofa danañ fa mën a woote lislaam mën faa tasaaroo ñàkk gum ñàkk a xam kumpa waxuma ne nag du ko xam waaye buñ ko ko xamalee dana ko xam waaye buñ ko ko xamalut moom du ko xam ñàkkum ñàkk xam kumpa booba tax na ñam boole woon ak ñooña ñépp dañ leen faat amu ci kenn ko des te ñooñ ñu amal njariñ islaam lañ bu fekkoon ne maa ngi xool yonent benn par benn ci biir alxuraan daanaka xaw na maa mën a wax ne yonent bu nekk rek danaa la mën a wax ne fii day li muy tegtale mooy xamut kumpa su la neexee nga jël yaaquba ab yonent la doomam ya bañ ne ko lu tax wóolu wooñu ci yusuf te nun dañ koy sàmm rek malaka la tamanna ala yusuf wa inna lahu la naasixun arsilhu maana gadan yartaa wa yalcab wa inna lahu la xaafidun ñàkk gum ñàkk xam xaybu tax na mu daal di mujj jël doomam joojee di yusuf ak la mu koy bëgg-bëgg jébbal ko ñooña nga xam ne ay magam lañ ba ñu demee luñ def dañ ko tàbbal ci ak bëgg ndax sa xel nangu na ne yaaquba dana xam ne ñii di mag yuusuf buñ demee dañ koy tàbbal ci ak bënn ba mu di ci jële aw naqar ba ci jële ay jooy yoo xam ne dem naa dema dem ba jooy yi feeñ ci moom ndax foofu ana ana ana ana ak xamam kumpa ana ak xamam kumpa boo jëlee yontu yàlla nuuxin moom itam bi nga xamee ne nee na saa doom jii day inna bu nii min ahli bu xamoon xel ne kàddoom googee dana ca jële ay wax yu koy bàyyi ko ci boroomam subhaanahu wa taala wax yoo xam ne yu tàng la innahu laysa min ahlik innahu amalun gayru saalix fala tasal ni maa laysa laka bi ilm inni aiduka an takuna min aljaahilin nga xam ne foofu moom nee na siiw mucc ma nga naan sama borom maa ngi muslu an asalaka ma laysa lii bihi ilm te moo ne moo ne moo ne moom de ci ulul azmi yi la bokk koo ma wax ci ulul azmi yi mën naa laa indil foo xam ne day tegtale ci alxuraan ne xamut kumpa tekkiwut ne xamuñu ñoom kumpa gu leen yàlla sama borom xamal ah kay waaye jëmmi kumpa mutlaq al gaybul mutlaq kenn ko xam muy suñu borom subhaanahu wa taala mooy koo xam ne laa yaxfa alayhi shay fi l ardi wala fi sama inna allaha laa yaxfa alayhi shay fi l ardi wala fi sama ibrahima ndax amul aw gan ñum defee ne ay nit lañ te fekk ay malaaka lañ yoo xam ne yàlla moo leen yebal ñu war a ñëw ngir alak dëkk bu ñuy wax nit yi luutin dëkk boo xam ne ne ñu sodum la tudd nit yi luutin ya nekk fa waaw ganam yooyee bañ ñëwee bu xamoon ne ñi ay malaaka lañ ndax dana sonn ci dugg ci wanagam jël ab gàtt bu duuf rendi ko togg ko fa qarrabahu ilayhim alaa taakulu di leen soññ ñu ne ko xam naa waxuñu ko sax waaye daa gis ne ñoom dafa gis ne seen loxo duggul ci ñam yi falamma raa ay falamma raa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum mu daal tiit waaw yesa minum xiifa ñu ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi luut nun kat dannoo yónni ci niti luuti nii ñun ay malaaka lañ maanaam yàlla moonu may man-manub nu mën a def ay jëmm waaw ibrahim mi nga xam ne xalilullah la xaritub suñu borom subhaanahu wa taala la ñàkk gum ñàkk xam xëy bu tax mu rendi ab gàttam ñàkk gum ñàkk xam xëy bu tax mu togg gàtt ba jox ko ñoo xam ne bu xamoon ne ñooña ay malaaka lañ duñu lekk du leen ko jox jugeen foofu malaaka ya ba nga xamee ne dem nañ ca luut ba leen luut gisee dalal leen jàppe leen ay nit ay nit la leen jàppe fekk ne ñoom duñu ay nit dañoo dañoo yor melokaanu nit bi nga xamee ne yàlla dogal na aw nitam yëg ne luut am na aw gan dañoo ñëw ak seeni xel yu metti wa jaahu qawmuhu yuhra'uuna ilayhi wa min qablu kaanu yaamaluuna sayyaat mu nekk fa di wax ak ñoom naan leen ñii samay gan lañu bu leen leen gàcceel inna haulaai dayfi fala tafdaxuun dégg nga malaaka yi daal di koy xamal ne ko ah na sa xel dal nun duñ ay nit inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk ñun ndaw yi sa boroom lañu ay malaaka lañ moom bu xamoon ne ñi ay malaaka lañ du ca sonn du ca sonn waaye ñàkk koo xama tax jëlal yunus ma nga xam ne teg na njaxam dugg ci ak gaal dem ba ci digg géej ga gaal ga ëpp diis gann ñu ne faaw ñu wàññi kenn su ko wóoroon ne gaal gii su ca duggee dana dem ba ca digg géej ga wala ca biir géej ga ndax xaw ma fu fan la ca di ci biir géej ga waaye ci biir géej ga la daal bu fekkoon ne xam na xel ne foofa gaal gi mu dugg dana diis ba bu ñuy tegoo bant ngir ko war a wàcc bant ba ca kawam lay dal fa saahama fa kaana min al mud mudhadin ndax dana ca dugg déedéet dañ ko jël sànni ko ci biir ndox ma aw jën wan na ko mu nekk ca jën wa ci biir jën wa naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ana ay bu foofu nga xam ne suñ boroom yàlla digal jën wa mu daal di koy gëq fa nabadnaahu bil arai wa huwa saqim bépp yonant boo xam ne indi nga ko daanaka ci alquranul karim xaw nañ laa mën a wan foo xam ne day tegtale ne yàlla rek xam xay bu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ñu tuumaale suñ yaay Aïcha tuuma ju metti ja ca Safwaan nit ña di ko tasaare rawatina naafiq ya rawatina Abdullah ibn Ubay ñëw na ci jàkka ji bisub aljuma di sàkku wàllu kan moo may dimbale ci koo xam ne lu baax rek laa xam ci moom fee ca lansaar ya ña ñu wooye waa aws ak waa xasraj ci biir jàkka ji foofa noonu daanaka ay jafe-jafe yu réeréy doon na fa am ba yont yàlla muhammad salaam mu nekk di leen dalal di leen dalal di leen dalal ba coow la dal ndax kàddu goo xam ne bàyyi koo ne ci kenn ci saxaaba yi su fekkee ne daa bokk ci sunu mbokk yi nga wax nu nu dagg bopp ba bu bokkee nag ci sunu mbokk yi nga sant nu la ñu ngi sant ñu def ko li ñuy kooka Saad ibnu Ubaada ak mbaax ga ak lépp ak xam yee jàpp ko yont yàlla muhammad salaam salaam Aïcha nee na day ñëw di ma nuyu sax daanaka du maslaa maslaa bu yàgg kayfa tiikum lay wax daal di dem yoonam mën naa dema dema dem ba nga xam ne man yëg naa ne am na lu xew keroog baa koy tàggoo di ñëm sama kër yaay umu rumaan Seydina Abubakar maanaam foofu laaj nañ ma fa laaj boo xam ne si man maa wax ne mbir mi daal sax na ci seen xel yi saxin woo xam ne su ma su ma leen waxee na leen defuma ko itam da ngeen ko gëm xadis baa ngi seen Buxaari yi Sahih Muslim su ma leen waxee ne maa ko def te defuma ko itam damay wax lu amut man daal li may def mooy wax la nga xam ne moom la Yusuf waxoon wallahu almustaanu ala ma tasifoon foofa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci foofa noonu la wax yu wàcce fukki fan ak juróom daanaka xaw na ko man baa moot weer dara leerut woona Ali ibn Abi Talib laaj ko woona Usaama ibn Zayd laaj ko laaj na Barira lépp rek xel mi di jiixi jaaxa ndax am amagul wax yu mu ko xamal lan la moo xew te ab yonante bi yàlla la moo gën ci kaw suuf yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da ngeen a fàtte ne yahud yii nga xam ne ñoo gën a bañ jullit ñi mas nañoo ñëw ci moom di ko laaj laaj boo xam ne sax laaj bi sax mën nañoo wax de yéefari màkka yi ñoom ñoo dem ca yahud ya ñu ne leen bu ngeen bëggee xam ba xam ab yonent la am de la ngeen koy laaj ñetti laaj ba ñëwee ñu laaj ko ko mu ne leen bu subaa fàttee wax insha allah fàttee wax insha allah wax yu fukki fan ak juróom ñëwut mu jaaxle lool te yàlla mi nga xam ne moo tee wax yu xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ci jële jë dana am lu mu ci jële te ay noonam ñoo ko koy laaj waaye booba yàlla daa bëgg ñu xam ne li ñuy wax almashiatu muy coobare ci loxoom la nekk maa shaahu kaana wa maa lam yasha lam yakun lu ko soob mooy am waaye lu ko soobul du am ñaata yoon ngeen di jàng ci alquran inna allaha yafalu maa yashaau yàlla waxut inna allaha yafalu maa tashaau de wala maa tashaauna de maa yashaau te maa yashaau kenn xamul yàlla moom kott moo xam wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla moo xam waaye yéen xamu leen nit xam-xamam dafa gàtt dama dafa dafa dafa dafa dafa ñàkk a peeg lool wa ma utitum min al ilmi illa qalila keroog balaaye ñëwee da ko wax ne ko bul waxti mukk ne danaa def nangam ëllëg lu may nga yeew ko ci coobare yàlla wala taqulanna li cheyin inni failun dalika gadan illa an yasha allah demal ci biir saar wi nga gis Muusa ba muy ànd ak kan xadir bam ne ko yow day doo mën a ànd ak man ndax daa am loo xam ne danga ko péegul wa kayfa tasbiru ala ma lam tuxit bihi xubra lu mu ko wax sa tajiduni insha allah boo ko sa tajiduni saabiran de dane ko sa tajiduni insha allahu saabira waaw léegi Muusa tukki bu metti boobu mu tukki ngir fekki ab jaam bu yàlla jox xam-xam boo xam ne moom joxu ko ko tukki boobu bu ko wóoroon ne ñetti bind dong la cay jëlee ndax su boobaa tukki bu metti boobu ak lam ca dajak laqad laqina min safarina hada nasaba te ki muy àndal kat bi maanaa mi ngi ànd ak moom waaye xamul ne xamul ne ànd bi du yàgg bal sax li kookuy def sax bu fekkoon ne am na lu mu xam ci wàllu xëy bu subaa du ko du ko du ko du ko diingat waaye ñàkk koo xam a tax mu di ko diingat ah aqatalta nafsa aqatalta nafsan zaakiya bi gayri nafs laqad jita shay'an nukura ma bu xamoon Moussa bu xamoon ne kii di xadir kii muy rey daa am lu ko ca yàlla xamal mu xamee ko noonu ndax dana ko jar mu wax loolu ndax bu xamoon loola dana dana ko wax ne ko dana wax xadir ne ko ndax da ngay bënn gaalu jàmbur gi a xaraqtaha li tuxriqa ahlaha laqad jita shay'an imra te xam ne xel kii li muy def njariñul waa gaal gi la waaye ñàkk xam xëy bu te Moussa min ulil azm Moussa mi ngi bokk ci ñi yàlla waxal wa kallama allahu Moussa taklima yonent yooyu nga xam ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala mooy wax ak ñoom di ko jaare ci ay malaaka ndegam ñoom ñoo xamul xëy bu asama koo xam ne moo mën a yem moo mën a yem loo xam ne ñëwagul nga mën caa dogu naan man li gën a doy waar sax mooy damay jox diw lii. yow li ngay joxe xanaa day nekk sa loxo xanaa fàtte nga tabaraka alladi bi yadihi l mulku xanaa jàngoo qul illahuma malika al mulki tu'ti l mulka man tashaa wa tanzi'u l mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa'u bi yadika al xayr xanaa jàngoo ci alquran wallahu yu'ti mulkahu man yashaa mulkahu la de nguuram gi moom nguuram maanaam lenn ci nguuram mooy xool ku ko neex mu jox ko maanaam ak pal wallahu yuti mulkahu man yasha mbokk yi nañu del delloo si waat suñuy xel ku bëgg suñ borom subhaanahu wa taala yaraangaal la ci biir mbooloo mi del jéem a wax ci loo xam ne lu ak seegut la yàlla ci alquran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na firi na mafatixul xaybi inna allaha indahu ilmu saa bis penc kañ lay taxaw xam-xam ba kañ lañ koy amal yàlla ko xam yonent yàlla Muhammad Jibril laaj na ko mu ne ko ah mal mas'ulu anha bi a'la min as-sa'il man mi ngi koy laaj waxuma la ci xam-xam xamu ci dara alxuraan nee na laa yujalliha li waqtiha illa hu xam-xamu bis penc kañ lay taxaw diis na ci asamaanu suuf sax waxuma la ak doomu aadama thaqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa baxta inna allaha indahu ilmu saa kañ la taw bi wàcc kañ lay wàcc waxuma la mandarga yi nga xam ne ci ngay sukkandikoo naan niir waa nga jógee fële mi ngi daw nangam bu waxtu sotti tam dana agsi bangam bu ko def dana dal ko waa météo li ñuy def loolu ñoom dañuy nattale te sax niir wañ seen ñoom gis muy dox na muy dox ak donte natt nañ ba xam ne bu ko doxee nangami nangam dana agsi barab sangam waaw bu soobee yàlla mën na ko mën na ko wàññi wàññeeku du agsi war benn yoon mais nag kawnu bi ci mashiatullahi lay dox loolu lañ war a xam nit daa war a yem ci gayet yam ci gudd kudd ñu rof ko ci gayet da nga yem ci kudd ñu rof la ci gayet man xamal ne nit nga koo xam ne waxuma la bu ñu la laajoon sa boppi kawar yi ñaata kawar nga am képp maanaa da nga fa ba moytu nga ñàkk daa loolu tax bëri sax sa sikkir gi dama ba lañ laa ñaata kawari sikkir nga am nga ñàkk tooy xib waxuma la ak nag deret ji nekk ci sa yaram bi litre yi lépp xamoo ci dara xamoo ci dara kenn mooy koo xam ne lépp la xam boo demee ca mujjug suratu fussilat dane ala innahu bi kulli shay'in muhiit boo demee ci sóoratu nisaa yi nee na wa kaana allahu bi kulli shay'in muxiita léegi da ngeen a bëgg a fekk si yàlla fii wattaqullah wa yuallimukum allah wallahu bi kulli shay'in alim bi kulli shay'in alim yàlla xanaa dañoo fàtte ne dane wallahu yaalamu wa antum la taalamun xanaa dañoo fàtte loolu dégg naa ci koo xam ne ma nga naan élection yi maanaam yooyu dëddu am sax moom ma ko ma daa wax sax moom dëddu am dëddu am moom foofu dëddu am dëddu am ma nga toog mbooloo maanaam ab télé jàkkaarloo yow ngay wax ak waa àddina xanaa da nga fàtte loolu xanaa nga fàtte ne àddina ngay waxal ndax sax tib bi nga mujj tibb sax ñaata fepp cere la bu dee cere nga reere wala ñaara fepp ceeb la bu dee ceeb nga reer sax xamoo ko bon xam na jinne yi nag ñoom nax na ñu bëree bëri jinne yi itam dañuy naxaate ndax da ngay am looy dugg dégg nga ma nekk ci ay tur di woo ay tur di woo ay tur yu dul suñu borom yàlla ba am yu la feeñu naan la yëf ni te jinne ak ñu na yem jinne yi xamuñu kump xamu ci tus lañ ci xamut yàlla wax na ci alxuraanul karim nee na jinne yi ba yonti yàlla Suleymaan génnee àddina dégg nga ma fala ma xarra yor na ab dokkam téye ko ni ko yàlla bindewoon mu raglu lool am xaybatu lool jinne yi ñoom ñu nga wéy di liggéey rek nekk ci liggéey bi rek yaamaluuna lahu ma yashaau min maxaariba wa tamathila wa jifaanin kal jawaab wa quduri rasiyaat ña ngay liggéey rek ndekete ñoom ki tax ñuy liggéey faatu na ba mu demee ba dokk ba mënatu koo te falamma xarra tabayyanatil jinnu wala nga jàng tubuyyinatil jinnu an law kaanu yaalamuuna alxayba maa labisuu fi alazaabi almuhiin ñoom xam nañ xill ne ndekete buñ xamoon xaybu ndekete lii ñu nekk di ci ngar-ngari suba ak bëcc guddeeg bëccëg dem nañ bu yàgg dañoo xamul xamuñu woon ne ki leen di liggéeyloo génn àddina di jinne yooyu nga xam ne ñoo leen di jox xibaar yi yéen ñiy wax jinne yi nga xam ne ñoo leen di jox xibaar waaw xibaar yi moom yàlla joxu leen ko ndaxte du ngeen ay yonent ab yonent mooy koo xam ne ab wax yu moo koy jógee asamaan wax yu daa dagg wax yu dafa dagg jibril wàccut di jox kenn lenn ndax wax yi dagg na loolu li ci firnde sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee àddina ndeysaan kenn ci ñaar ñi Aboubacar ak Omar dañoo ñëw ci ummu ayman ndeysaan mu gis leen rek tàmbalee jooy ndax ndey la woon ci sallallahu alayhi wa sallam ñu koy laaj ah mbaa yow lan looy jooy mu ne wallahi li may jooy du dama gëmut ne lam fekki moo gën lim bàyyi déedéet waaye wax yu gi dagg rek moo may jooyloo wax yu gi dagg ci asamaan rek moom moo may jooyloo ñoom ñaar dañoo ànd di jooy ànd ak moom ànd ak moom kon mbir yi ki ciy juum mooy ki nga xam ne daa dellu fudul njàngaleem sunu boroom yàlla ki ciy juum mooy ki nga xam daa dellu ci ludul njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi Sénégal gii ñu nekk nii man damaa xamul ba xam ne ñu nekk ci jamono yi bëgg a fés ak bëgg a feeñ fenn fu nekk léeg-léeg gis gone goo xam ne maanaam daanaka moom ci jàng la toll gone gu toll ci jàng nga xam ne moom fer iji sax defagu ko fer iji bu dee alxuraan sax mu jàng ko mu leer sëtagut mu daal dugg ci buntu damay faj aajo yeeg damay lijjanti nangam ak yoo xam ne ah ndax itam xam nga réew mi comme naa ñoom seen xel yi foofu la toll boo dee sol yére yenn yi rek dañuy yaakaar war ngaa mën a nangam ak nangam fii ne Sénégal noonu la bindoo Sénégal noonu la bindoo fi mu doon yi tembe moo tax buntu boobu ñu bëree bëree bëree bëri fa la ñu nekk léegi dama ne. nañ dem jàngi sunu lislaam ji diine ji diine jàgg la suñ ko jàngee ba àggal ñu jëfe ko su boobaa danañ mucc kenn du loroo ci nun waaye nun tam du lor suñ bopp lenn daal moom moom laay jeexale mooy lu jëm ci buntu alxaybu nañ ko bàyyi xel anbiyaa yi nee nañ ñoom xamuñu ko xanaa lu leen ci yàlla xamal boroom bi subhaanahu wa taala nee na aalimul xaybi falaa yudiru ala xaybi ahadan illa man irtada min rasul moom moom yàlla moom rekk xam kumpa du feeñalal kenn kumpaam xoolal ala xaybihi nakki def bu ñu laaf maanaam bu ñu laafal damir la nga xam ne yufidul umum mi ngi mel ne nicmat allah ala xaybihi te it mboolem xeeti kumpa am yi du ko feeñal kenn xanaa kum gërëm nga dem yonante illa man irtada min rasul nañu maytu ku fekkee nit ki daa bëgg aw tur bëgg boo lëgee ñu gën koo fonk boo lëgee ñu gën ko na gën a jege na jege boroomam subhanahu wa taala te yonent yàlla muhammad dafa am lu muy jàngal ci buñ jullee ba noppi di ko wax muy wala yanfau zal jaddi minkal jadd wallahi bu la yàlla saa borom subhaanahu wa taala boole woon ci ñi nga xam ne ñoo gën a xejj fa moom cër boo xam ne jox na la ko fii ci àddina du cër booba mooy la lay jariñ fa moom déedéet ndax cër boobu joxoo ko sa bopp xam nga lan moo la fay jariñ mooy al amalu saalih mooy jëf ju baax saa boo jullee ba noppi yaa ngi koy wax kon nag noo ngi taxawlu foofu di jublu rek yee nit ñi ku bëgg a yee nit ñi nag da nga leen di yee ci li nga xam ne yeetee ko tax a jug ku bëgg a jubal nit ñi da nga leen di jubal ci li nga xam ne jubalee ko tax a jug te mooy alquranul karim gi nga xam ne leer la wa innahu la huda wa rahma leer la yërmaande la njub la saafara la mooy tax nit ki mën a nite mooy tax nit ki def jar kenn du ko nax kenn du ko nax ci dara subhaanahu wa taala nguur gi du lu bokk kenn subhaanahu wa taala nguur gi du lu bokk kenn walam yakun lahu sharikun fil mulki kenn bokkul ak moom nguuram gi du kenn te it loolu leer na ci képp koo xam ne am nga am xel nit ñépp lotte ci bind aw fepp suuf nit ñëpp lotte ci bind aw yoo ci nit ñëpp lotte ci bind aw weñ noonu lañu lotte ci lu gën a rëy loola lu gën a màgg loola na jaam bi dib jaam yem ci ne ab jaam laa di jaamu boroom subhaanahu wa taala ñaan nag ku ne mën na ko mën ngaa ñaan mën ngaa ñaan mën ngaa ñaan yàlla sa boroom may la bu la mayee bu la mayee ngir ne danga koo jege loolu da gën a da lay gën a wan sa ubudiya rek ndax maanaam nguur gi moom lépp ñaan dong la waaw nguur gi moom ki ko moom moo ne ñaan leen ma na ñëpp ñaan man soo ñëwee ci man ne damaa bëgg damay sàkku ku ma ñaanal ma ma ma ma ma ma ma gañ dama lay ñaanal ñaan nga sax du jar may woowaas télé beeg yëpp ñuy ñëw ma lay ñaanal déedéet waaye bu bu la seytaane ma ne nag ba nga fay jël kàddu di wax loo xam ne lu agseegul la ah. man naa am nga jële ci bind man naa am ñu jële ci ay bind waaw Sénégal gii ñu nekk mooy dëkk boo xam ne dëkk mu naqaree waxe la dëkk bu naqaree waxe mooy Sénégal dara warul ko lu may bu fekkoon ne ñëpp ñëpp ñëpp dañoo gëm ne wax ji nga xam ne moo gën a dëggu wax ji nga xam ne moo gën a wér mooy alquranul karim te jeneen wax ginnaaw alquranul karim bu wuuteeg alquran saxut fa bi ay xadis baad allah wa ayaatihi yuminun wax yu ñëwaatul lenn moo fi des lu yàlla wax ak nit ñi muy alquran yonente bi nga xam ne moo doon wax ak nit ñi naan la yàlla nee na mooy muhammad sallallahu alayhi wasallam génn na àddina bàyyi na fi alquranul karim ku bëgg am dëgg ku bëgg jël lu leer ku bëgg a dund lu leer da ngay dellu ci alquranul karim loolu daal mooy li nga xam ne moom laa ne woon faaw danaa ko laabiire samay bokki jullit ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu dimbalenu nu xam ne nun ay jaam lañ wallahi ak njaam lu am solo lu neex la alxuraan nee na amul kenn koo xam ne yaa ngi asamaan wala yaa ngi suuf lu may nga xam ne booy dekki yow man xam ab jaam ngay doon doo fa indaale men benn benn martaba in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahmaani abuda dàq ñu moos ne am nañu ragal yàlla dàq ñu moos ne am nañu am cër fa suñu borom subhaanahu wa taala waaye li ñuy dàq mooy li yàlla saa borom dàq mooy jëmmi al xaybu ni alquran waxe xanaa nu soppil nu alquran wala nu indil nu leneen loo xam ne dana ah yéen kat yéenee wax li waaye kat laay yi nangam waaye li fekk alquran mii nga xam ne moo nekk suñu kanam laay yi lañ fi fekk lam ñuy tegtal mooy kumpa suñu borom yàlla rek boo ko xam أسأل الله الكريم الذي أنزل القرآن الكريم أن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغمنا آمين يا رب العالمين